jërëjëf mbokk yi bàyyi xel seen site web bi di Senego ñu ngi fii ci diwaan bu Touba nu baaxu ànd ak yéen ci entretien yi ñu ngi koy amal ak yéen ci seen sit bi ak seen euh, site bi nga xamante ne yéen a koy bàyyi xel fu nekk ci àdduna tey di kat ak yéen ci beneen entretien fii ci diggante Touba ak Mbacké waaye tey ñu ngi fii ci diwaan bu Touba seet si koo xam ne euh, xale la waaye la ci li nga xam ne moom mooy ci réew mi ak li nga xamante moo di ci doxin doxalinu askan wi ak bëgg askanam ci di ko taxawal ci saa yu jotee xam naa ñu baleen ak moom mu nuyoo euh, sëñ Pape tey ñu seet si la fas yéene seq yow entretien di waxtaan wu nam nañ ko ànd ak yow ñu ngi lay nuyu. Euh, chef bi ñu ngi lay ziare bu baax yéen waa Sénégal ñu ngi leen di ziare ak euh, mbokk yi ñuy déglu yëpp waa ñun la Pape Sélé Seck benn jeune la boo xam ni que ni dafa amoon benn ambition. ci li nga xam ni que ni moo xew ci réew mi muy li naqari ñëpp sénégalais yëpp mooy ñàkk doole gi nga xam ne moom la askan bi ñàkk doole ci réew mi. parce que tey dañu sentir ni askan bi lii muy dund ni ñàkk doole moo tax mu koy dund te am réew bu askan bi ñàkkee doole. lu waay neex def ko te bu boobaa day métti ci ñoom moo tax ñun nag ñuy jug di xeex jëmale ko ci ñàkk doole googu ñu ñàkk doole pour que askan bi amaat benn doole bi. mooy lan waaw dañoo am benn programme boo xam ni que ni ñu ngi ko tuddee delloo baatu askan bi si askan bi maanaam dañoo dem ba sentir que ni askanu Sénégal bi amatuñ kàddu ci réew mi maanaam. li ñuy wax duñ ko déglu ou bien seeni ay jafe-jafe duñ ko duñ ko duñ koy saafara te loolu noonu dañoo sentir ni que ni sunu sunu sunu dirigeant yi ñàkk respecté askan bi moo tax ñuy doxalee noonu moo tax ñu créé benn programme boo xam tuddee ko bu delloo baatu askan bi si askan bi. tey jii li nga wax nii lu jafe jëlee ci Sénégal la ndaxte yaakaar naa ay régime yi bëri jaal nañ fi te wenn doxin wi la tey ban engagement ngay jël. ci xeex bi ak ci nan nga ko naka taxawee ndax ci mouvement ngay dem wala naka ngay taxawee xeex boobu. waa xam nga tey jii suñu nee doole ci askan euh, mënuñu wax doole ci askan te waxuñu souveraineté te tey jii suñu souveraineté dañ ko dafa mel ni que ni askan bi daf koo ñàkk. ndax li tax ñuy wax souveraineté tey suñu demee ci suñu constitution nga xam ni que ni ñu ngi jëm ci article 3 tey euh, ñu ngi wax que ni suñu souveraineté ci jëm boppam askan bee ko moom mais malheureusement askanu Sénégal ñoo ko moom mais fan la nekkee ci askan bi. fi mu nekkee foofu noonu askan ba dafa amul kàddu maanaam suñu souveraineté ñaar yi lañ ko mën a exercer muy fan assemblée nationale suñu représentants yi ñoom ñoo yore suñu souveraineté di dogal maanaam ñoom ñooy ñoom ñoo yore souveraineté askan bi léegi nag bu dee ñoom ñooñu lañ jox souveraineté askan bi parce que askan bi moom moom pouvoir boobu ñoom ñu jox leen ko ba pare que ñu jëlaat ko jox ko kenn nit kon askan bi amatul souveraineté ci assemblée nationale bi ñu demaat ci beneen partie bi nga xam ne moo ci topp muy référendum ñëpp xam nañ li fi xew ci référendum yi askan bi xamuñu lu muy làkk dañuy def référendum ba pare après ñu xam exactement lan lañ doon voté lan lañ doon wii ou non te dem nag di agir ci loo xam ni que nii xamoo lu mu doon nga def oui ou non loolu erreur la loolu day permettre askan bi dañ koy fowee day nekk loo xam day sensible léegi nag ñun loolu moo tax ñu jug di xeex ngir suñu souveraineté boobu nga xam ni que nii moom lañ jox assemblée nationale. parce que tey jii mënuñu mënuñu xeexal askan bi te waxuñu assemblée parce que ñoom lañ jox pouvoiru askan bi parce que gannaaw ba nga xam ni que ni dañoo séparer pouvar yi dañoo jël exécutif jox jox ko président. ñu jël euh, législative jox ko euh, assemblée nationale muy askan bi parce que ñoom représentant du peuple la leen wax ñu jox justice bi jox ko euh, justice kon ñun askan bi suñu suñu pouvoir suñu doole dafa jot ñu jot ci ba pare ñu mu jariñ ñu ñuy doog a xool beneen pouvoir li moo tax ñu xeex jëmale ko ci ci ci ci assemblée nationale. li ngay wax nii lu lu jafe la ndax dañuy xeex lu ji nga xam ne moo di taxawaay bi nekk assemblée te assemblée ña fa nekk ay nit ñoo leen fal yóbbu leen fa tey ji xeex bi yéen comme que da ngay bëgg dugg ci comme côté politique wala xeex bi. ci élection yi nga xam ne wala ci ñuy fale député yi ci taxawaay boobu ngeen di liggéey bi wala da ngeen bëgg di wax nii rek ngeen ban taxawaay maanaam ngeen di jël ngir xeex loolu ndax député ya ne foofu dañ leen a fal. waaw xam nga député yi dañ leen a fal mais ñoom ñu ci bëri ñëpp xam nañ ni ñuy doxalee que ni man parti bi laa bokk li parti bi wax rek laa wax man parti bi laa bokk li mu wax rek laa wax maanaam kii day opposé moom da dangay da ngay dégg parfois député opposition boo xam ne da dégg mu ne la man projet de loi yi fi jot a jàll yëpp voté wu ma wi yëpp dama ko contre kooku xam nga aussi tamit mënul mënul mënul mënul mënul defut liggéeyam. parce que mënuñ ne li fa jaar lépp a bon mais ki ne moom ki ne au pouvoir moom kooku moom dañ koo jëlale moom moom saytuwut sax parce que dafa feeñ déjà ci post premier ministre bi ñëpp gis nañ ko que ne ñoom dañ leen faa fal pour ñuy saytul askan bi di xool bu leen président waxee ah ñun kat lii lañ bëggoon a def ñun waa askanu Sénégal lii lañ bëggoon def en tant que président ñoom ñu saytul askanu Sénégal parce que jii ba ñuy supprimer premier ministre bi sénégalais yëpp la waroon a laaj laaj leen ba xam nii lañ bëggoon a nii kii lañ bëggoon a def lii lañ bëggoon def ñëpp jox ci seen xalaat mais xam nga loolu mënul nekk moo tax ñu tànn leen ñoom ngir ñuy waxal askan bi di saytul askan a saytu saan parti nee na non nee nañ non donc foofu rôle bi dootul amati te ñoom rôle bi leen jox dafa am solo ci réew mi parce que assemblée nationale tey jii ñoom ñooy voté loi yi mais nañ xool loi yi xa am ci réew mi yu ci bëri dañuy voté ba pare mais askan bi daleen di jaral sax parfois da ngay gis sax parfois ñu ci rey ñu joxe di marche ba nit dee si te ñoom ñu ne pouvoiru askan bi lañ yore dañuy voté loi yi nga xam ni que ni moo war a dox ci askan bi te ñoom kon sentir askan bi sentiruñu seen bopp ci loi yi. bu fekkente bu fekkente député yooyu ngay wax ñoom dañoo faloo ci ci parti mais amuñu droit nag euh, tey ji parti bu nekkee moo nekk am tey ji ñëw il faut ñu jàppale ki nga xam ne moom xëy na mu andi loi mbar koo taxawal nekk président. waa xam nga loolu mooy erreur bi nga xam moo de moo am biir assemblée. dañoo dañoo war di contrôler ñoom. ñoom dañoo war di contrôler moo tax ñu teg leen fa et comme li ma la expliqué sànq gannaaw ba nga xam ni que dañoo fal président askan bi yëpp dañoo waroon di wax lii wax lee wax lii lii lañ moo ñu metti lii lañ bëggoon lii nii président aussi balaa def dara laaj askan bi mais xam nga loolu ñëpp xam nañ ni mënul nekk moo tax ñu tànn ci sénégalais ñoo xam ni que ni ñoom ñoo yore liggéey boobu du parti bii moo ko moom wala parti bi parce que man gisuma gisuma ko bokk. suñu suñu constitution ñu bind na que ne parti politique bi wala parti opposition wala pouvoir ñoom ñoo moom assemblée assemblée pour la nation askan bee ko moom donc nag ñun ñun sénégalais yi ñun sénégalais ñun sentir nañ que ni depuis 1960 ba tey même assemblée bi la ñuy am ku fi ñëw falu ñu jox la majorité bi te te benn exemple rek laa joxe tey jii boo xoolee sénégalais yi ñu ci bari ñu ci bari suivre tunu programme yi nga xam ne mooy am ci réew mi parce que lan moo tax tey jii boo ñëwee nañu dañ ñuy tabaxal euh, dañ ñuy tabaxal lii ñuy tabax di tabax di tabax di tabax ba dernier moment ñu ne dañuy dañuy xool la nga ñu waxoon moom nga ñuy tabaxal la nga ñu waxoon doon leneen loo xam ni que nii moom nga ñu tabaxal maanaam bu dee da nga ñu woon da nga ñu waxoon ni troisième étage nga ñuy taxa tabaxal ñu ñëw ñu fekk fa benn pentre y a un problème et que daf ci ci ci loolu dafa am dafa am noo xam noonu lañ ko tegee dañu ne kii kii dafa indi plan wam ne plan bii laa bëggoon tabax kii indi beneen plan ne plan bii laa bëgg a tabax ñu jël ñaari plan yooyu sénégalais yi tànn ne ñun étage bii la ñu bëgg kii ne étage bee moo gën kii ne ñu ñun sénégalais ne bii lañu bëgg yow ñu jël la jox la ngay ngay tabax étage boobu et aussi ñu tànnaat ñoo xam ni que nii dañ leen a jox cër tànn leen ne leen yéen yéen yéenay xool ciment bi fu muy jaar yéen yéenay xool bâtiment bi fu mu toll plan bi bu buñ ko naree changé nañ ñu wax lii moo tax ñu changé ko lee ak lii ak lii léegi nag bu dee kooku noonu dañ ko faa teg pour loolu moom mu ne kee lu ñëw lu wa lu mu wax rek moom danaan waaw te kii ñu jox ko mission jox kee mission kon y problème donc problème bi mooy parti fii laa bokk wala fee laa bokk moo war a jóg ci assemblée bi maanaam ku ne mën nga bokk fa la neex mais ngay xool intérêt peuple bi ñun nag loolu dañu gis ni que ne bu dee ñaari groupe yee rek fa nekk comme ça opposition ak pouvoir maanaam ñaar ñi doon xëccoo ki joxe woon plan bi ne man bii laa bëgg kii ne bee laa bëgg ñoom ñaar bi ñu tànnee ba pare sénégalais bi ñu tànnee kenn ba pare ñoom ñaar ñu yóbbu leen waat ñu war a saytuwaat liggéey bi day compliqué pour ñu régler ko léegi nag noo tax ñun ñu bëgg indiwaat beneen groupe boo xam ni que nii day ñëw taxaw biir assemblée te du bokk ci ñaar yooyu benn te du xëccoo aussi pouvoir bi nga xam ni que ni mooy exécutif bi pour moom comme parce que nit nag nit ki nag boo ko mënoo koy contrôler ba pare yow di ko contrôler ba pare soxla siège bi mu toog wala yow mi nga xam ni que ni yaa toog ci siège di contrôler sa bopp donc dafa am beneen beneen beneen système boo xam ne dañ ko war a indiwaat ci assemblée bi parce que bii doxul bi moom depuis 1960 ba tey doxul kon dafa jot ñu changé ko indi leneen loo xam ni que ni dina jëriñ askan bi parce que yëfi askan bi la te dañ ko war a jëriñoo. tey jii euh, man naa ne euh, yow la nit ñi gis bu dee image tey jii yow la ñuy gis lii nga wax nii da am ñoo ko àndal. ak wax ji ndax fii nga ko yemal ci diwaan bool wala da nga gé bëgg génn ci yeneen région yi ngir yaatal wax ji ak wax ji ñan nga ko fas yéene àndal ndax li nga wax ni du programme bu ndaw. waa léegi nag xam nga ñun dañu am suñu xalaat. doon ko partagé ak ñin ñi ñu gën a jege mais nag bi ñu waxtaanee ñoom dañoo gën dañoo gis ni que ni dañ ko war a gën a yaatal parce que ñun instant bi ñu ngi coordonné au niveau national jeunesse bi yëpp ñu ngi coordonné ñu ngi commencé coordonné. mais nag dañu commencé gën a yaatal balaa législative yi pour que sénégalais ñu xamale ni que ni man waxuma man man assemblée nationale waxuma man déedéet dama ne ñu saytu tànn ña fay dugg parce que ñoo ñu fa dugg suñu souveraineté lañ leen jox dañoo war xam kan ak kan la waru nekk rek benn liste xuusma ñàpp rek ñu dugal la ci liste non dañu war a identifier sénégalais yiy dem yiy dem biir assemblée xam ñii la xam ñee la mais nag loolu li koy permettre mooy il faut jeunesse bi engagé wu ci assemblée bi parce que assemblée rôle bu am importance la amee c'est que nag yi mënaguñ koo xam parce que ñu ci bari sentiruñ ci seen bopp léegi nag pour que nag ñu sentir ci seen bopp il faut ñu jël ci sunu matuwaay comme ni ñu jëlee que ni président bii la ñu bëgg ni la ñu war a ni aussi ci assemblée bii la bëgg représentant yu mel nii la ñu bëgg. waaw mais Pape nag tey bu fekkente ni dañu dañu dañ la jël comme lii nga wax nii muy programme bi nga teg nit ñi am ci eh, xel mu rafet tey ji ba jël euh, fal la mais boo soppeeku doxin loolu lu ci askan wi man nag. waaw loolu ah, ah y a problème foofu parce que nag loolu li tax muy indi problème mooy que ni tey bu dee dañoo da ngaa def sa list kese yow kese nga dem ut say booy yoo xam ni ñoom ko dugg ci liste bi suñ la viré da ngay dem ànd ak ñoom yow ak sa liste mais bu dee dañoo organiser wu ñun jeunesse bi dañoo organiser wu tànn suñu list képp ku bokk feneen. loolu moom c'est déjà yow moom génn nga ci génn nga ci ñun. képp ku bokk feneen moom da ngay génn suñu assemblée da ngay génn suñu groupe da ngay génn assemblée parce que ñun ñoo la fa dugaloon da ngay génn biir assemblée nationale. a lay da dem boo demee ñu tànn ñu sànni changé keneen te loolu constitution bi ko donc du du noonu keneen ku dem ba sentir que ni yow mii kat ah da bokk parti ba dañ lay génnee da ngay dem sa parti mais nag boo suñu assemblée moom da nga dootoo représenté ñi nga xam ni que ni ñoom askan bi lañ teewal maanaam bokkuñu fii bokkuñu fee. Hmm. da ngay génn tey ji programme bi nga wax. mënuloo lu xaw a méngoog élection yi ñu jëm. ci tànn gi ñu tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a jiite bokk moomeel rawat na fii ci diwaan diggante Touba ak Mbacké tey gis sax beneen kuréel gu sosu mu mel na seen xalaat bi xaw na ko jege tuuti ñoo xam ne dañuy toog di déglu candidat yi nga xam ne ñoom ñoo war a euh, dem ci li nga xam ne moo di jongante yi ndax yéen ñi tey yi lii nga wax ne yeelut ci ngeen taaj ñooñu comme ni ko ñeneen di defee ñu wax leen seen programme ba xam doy nañ leen wala doy leen ngeen mën leen a boole ak askan bi tey jii ba tey ëllëg lu man di xew ñoo xam ne yéen kat donte yéen a ngi door waaye wax ngeen li ngeen war a wax def ng li ngeen war a def ndax fu ngeen toll ci loolu. waaw xam nga tey boo nee programme sànq maa lay expliquer programme yi ñun ñëpp xam nañ di sénégalais léegi déglootuñ programme xaaj bi ñiy voté ñi nga xam ne ñoo ëpp ci askan bi déglootuñu programme maanaam lan moo tax parce que bu ma la waxee lii ba nga fal ma nga def lële loolu moo tax ñi ñi déglootuñu programme léegi nag lan moo tax nag suñu programme suñu la ko joxee doo ko def ñun ci foofu la ñu nekk parce que foofu la problème bi situé wu askan bu bëri ñu bëri dañoo découragé wu génn ci génn ci programme yi léegi dañuy fal sax ci nu mu leen neexee parce que même yow bu ñu la falee pare ne la neex ngay doxee donc loolu moo tax ñun ñu fas yéene jug taxaw xeex loolu lan moo tax yow suñu la falee sa programme bi nga waxoon doo ko def mais dañoo sentir gëstu ko ne suñu représentant yi ñoom ñoo deful seen liggéey parce que ñoom dañ leen a tànn ngir ñuy saytu loolu ñuy xool évaluer di contrôler l'action du gouvernement di xool di saytu mais bu dee loolu amul tey jii du askan bi dañuy découragé léegi nag suñu nee fal dañ koy jàppee fal nii rek parce que ñun sentiroonu suñu bopp ci ñi ñuy fal ku ñu fal yow ak sa mbokk yow yow ak yow ay falu léegi nag ñu ñu ne ñun bëgguñoo falu ci ñiy liggéey déedéet bëgguñ ca bokk mais ñun dañoo bëgg a bokk ci ñiy contrôler ñiy liggéey parce que foofu la askan bi tollu instant bi dafa jot muy contrôler di saytul boppam ngir mu mën a gis boppam ci réew mi lii moo tax ñu tey ji lii nga wax ni tey naka nga gisee ñun suñuy député yi nga xam ne ñoo ne fii ci diwaan bi ci assemblée waaw xam nga député moom ñaar la bu dee yow bu dee yow da ngay dem juste rek pour euh, parti bi laa bokk liggéeyal naa parti bi après ñu dem ñu kii la yow da ngay tënku ci parti bi lu parti bi wax rek da nga naan waaw. et alors que parfois parti bi danañ wax loo xam ni que ni arrangé wut arangé wut askan bi mais comme que parti bi ñoom ñoo la faloon ah si mu loolu laa mën a wax parce que list bi parti bi moo la ciy dugal da ngay jékki-jékki rek ñu ne la dama ci biir parti après nga yow nga dem biir assemblée di. koy teewal mais ñun nag suñu liste dañ ko bëgg a defee noo xam ni que ni dañuy askan dañ ci am kàddu maanaam département bu ñu dem ñu ne ah département bii kat ñii ñoo fi nekk askan bi tànnal seen bopp. yi nga xam ne ku mel ku mel ne Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly taxawaayam ci assemblée yaakaar naa ñu bëri ràññeetle nañ ko ci taxawaayu askan yi te am moo ne ñeen ñu dëkk fii ci diwaan bi yow lii ngay xeex yaakaar naa ne sore woo leen euh, ab taxawaay tey xanaa ku mel ne war nga ko mën a cité. waaw xam nga Cheikh Abdou macha allah moom nit ku ma nawloo la wax dëgg yàlla parce que. kilifa la ci dëkk bi ku ñu naw loola aussi mais nag liggéeyam mënta sori parce que parce que moom kàddoom moom kese ak groupam mënuñu dara ñun loolu moo tax ñuy xeex doom moom kese mënu dara parfois mu gis loo xam ne daf koy naqari mais moom kese mënu koo xeex. loolu moo tax ma ne la opposition ak pouvoir ñoom ñaar kese mënuñu régler problème parce que bu kii xasee am majorité ba pare bu ñuy voté moom day yëkkatee ko wàccee rek mais du am benn njariñ ak poser question après mu jeex mais loolu amul sens dañu war a fexe majorité bi ñun ñu am ñoo xam ni que nii day duñ bokk benn parti mën a équilibrer pouvoir bi ñun lii moo tax ñuy xeex ñoom dëgg ëllëg am na ci ñoo xam ñu ngi liggéey ñu ngi kii mais loolu lépp aussi tamit da am lu ci lu ci lu ci laxasu tey bu dee opposition nga bokk parfois mën nga dem kaas lii parce que gis nga gis nga ko ba taay fii laa bokk léegi ah man fii laa bokk suma bokkee fii man lii nii dara baaxu fi boo demee feneen fii lépp a baax léegi problème bi mooy ñoom fi ñu bokk moo tax ñuy wax mais bu dee dañuy xool ci yitte askan bi parfois dinañ mën a identifier problème yi fan ak fan la nekkee lii moo tax ñu ñu xanaa yéen nag wax dëgg yàlla élection législative yi ñuy jëm nag da tabb ay mbër fenn ngir yéen li ngeen bëgg ngeen nam ko wala nii nga ko bëgg amee moom nekk na loo loo loo xaw a jafe tuuti de. waaw xam nga ñun élection yii di ñëw li ñu fas yéenee def dañoo fas yéenee defar liste boo xam ni que ni liste nationale lay doon avant tout ñu tànn liste nationale bi sénégalais yi nga xam ni déjà ñu ngi leen di gis ñuy liggéey sénégalais yëpp xam leen. mais tey seen xeex nekkul ci gouvernement bi cest à ñoom bokk ci gouvernement bi yittilu leen mais à tout moment ñu ngi ci intérêt yi peuple bi à tout ñu ngi xeexal askan bi ñu dem waxtaan ak ñooñu xamal leen ni que ni xeex bi nekkatul ci tali bi wala ci kii bi déedéet. assemblée nationale askan bee moom ñoom dañ fa am dañ fa am part responsabilité ñoom dañ fa war a dem taxaw foofu teewal fa askan bi ñun ñooñu la ñu fas yéene dem waxal identifier leen ci askan bi 17 millions d' habitants yi ne Sénégal ñu fas yéene dem tànn leen ci bu ñu ñëwee aussi nag ci département bi. liste départementale bi ñu fexee tànn ñoo xam ni que ni askan ba dëkk ca département ba ñoom ñooy xool ni ah ñun kat diw mii amal nañu fi njariñ te pourtant bokkul benn parti pourquoi pas ñu def ko suñu liste pourquoi pourquoi bu ko defee nga xam ni que ni liste bi day nekk liste boo xam ni que ni liste bu bu bu bu am ay kaddu lay doon ñu ñuy tànnee day bëri kaddu du doon comme ça man fii laa bokk wala fee laa far wala man parti bii laa fay teewal déedéet loolu moo tax ñun ñu def liste bi. bi nga xam ne daanaka ku jóg changé lenn ñëw andiwaat nangam tey jii nan nga gisee doxin woowu ci réew mi. ah xam nga constitution du ko jóg laal ko de constitution da ngay ñëw proposer ne ah man kat damaa bëggoon def révision tàngam lii laa bëggoon a def mais du da ngay dem rek laal ko de da ngay laaj askan bi. askan bi ñoom ñooy d'accord ci loolu de mais askan bi ñëpp mënuñu wax mooy li ma la wax askan bi ñëpp mënuñ ne wax ni waaw lii baax na wala baaxut mais assemblée nationale la jëm assemblée nationale ñoom maanaam loolu la loolu la war a xam ni que ni ñoom askan bi la war a teewal te jii bu dee président dafa war a def loo xam ni que ni arrangé wul askan bi te yàgg nañ ko fi gis ay ay ay proposition de loi yoo xam ni que ni gis nañ ko fi bu ñu demee askan bi ñëpp dañuy dàkk ko ni li baaxut mais da gis ñu voté ko kon donc ñooñu ñan ban ci ban intérêt la ñuy dox doxuñ ci intérêt peuple ci gàttal parti ci biir ensemble nga bëgg a dakkal. waxuñu sax ñu dakkal ko mais doole bi ñu fa am wala ñoom ni ñuy doxalee ñun noonu lañ bëgg mu wàññeeku. maanaam maanaam fii laa bokk lii laa war a wax fee laa bokk lee laa war a wax moo war a jeex biir assemblée. pour fii laa bokk wala fee laa bokk mais pour saytu contrôler xool loolu moo tax ñu teg leen fa te ñun dañoo sentir ni que ni fii réew mi toll ci jamono jii nga xam ne ñëpp découragé te jii boo xoolee jeunesse bi xoola fi ñu toll ñu ci bëri génn réew mi moo leen gën dee sax génn réew mi moo leen ko gënal parce que ku jël gaal. nga xam gis ni géej gi ni mu mel mu jaral ko mu génn réew mi parce que gisatul boppam ci réew mi et alors que yow boo falee yow ak say mbokk yow ak say kii yéen moom réew mi te askan bi ñëpp di participer tamit neexatul foofu moo tax tey sénégalais yi dañoo war a focaliser wu xool lan moo tax kuñ fi yow ak say mbokk yéen moom réew mi te loolu nag mooy que ni askan bi amul doole te doole boobu ñu ñàkk dafa jot ñu amaat doole. ñi yor seen doole ñu fexe ba ñu delloo si ko ci askan bi maanaam di muy doon doole joo xam day jëriñ askanu Sénégal. Mm-hmm. tey ji yow ndaw nga euh, jóg am xalaat bi euh, fas yéene ko ànd ak say yeneen ndaw tey mel ne démb réew mi xaw na jax tuuti ci côté sport tey ji ban appel ngay jox wala ban message ngay jox seen yi nga xam ne ñooy yëngu ci yenn yëngut yi ba ay jàppante di ci am ñoom ñëpp ñu mën a am xalaat bu mel na yow wala xalaat bu gën a raw bi nga am pour Sénégal gën a jëm kanam ci lu ay violence. loolu nag euh, xam nga violence moom dafa nekk loo xam ne dafa compliqué parce que yow parfois nga gis violence boo xam ne que ni sax ndeysaan yéenay bokk benn koñ maanaam ñii ak ñii dañuy daje ñu bokk benn koñ ñu topp seen seen bëgg-bëgg ba far ñu gaañante te loolu war na nu am ñun suñu biir benn cofeel boo xam ni que ni war na nekk suñu biir ba yow boo naree gaañ kenn di nga xam ne que ni yow ki ngay gaañ ki la te loolu noonu dafa law ba ci làngum politique bi noonu nga ko gisee. tey jii ñàkk ñàkk ñàkk a doomu aadama def ciy joué parce que tey man mënuma comprendre nga jël doomu aadama dóor wala def lii te du mujj fenn loolu tamit mënu mënu nekk munu am réew waru doxee noonu buñ la buñ buñ la tooñee boo demee ci yoon da ngaa dañ laa dañoo war a régler loolu mais bu dee yoon wi daa am yoon woo xam ni que nii yoonu euh, kii moo am ndeyam ndeyam moom kenn ba kenn dóor kii moom dóoral ndax amu fi ndey ah mais après day law day jàll fu ne day dem ci làmb ji day dem day dem mais bu dee lépp loo xam ni que ni ñu tegee nañ ko noonu tey jii boo naree def benn ak di nga suuraale loolu. da ñaari yoon dafa am. ah loolu kay jëru nga koy jëru nga koy laaj ñaari yoon yi kay gis nañ ko. bu dee yow fii nga bokk nii lañ lay nii nii lañ lay kii bu dee fee nga bokk nii bu dee nag bokkoo fenn nag moom ñu classé na leen say dossier sax duñ ko lijjanti parfois ñaata sénégalais ñoo nekk ci biir kii te kenn lijjantiwu leen te defuñu dara nag parfois dañu leen mais duñ du mujj loolu sëñ bi dafa metti dafa metti tey jii violence yi am ci wàllum politique bi Ousmane Sonko ak ñeneen ñoo xamante ni sax ñu ngi ci pouvoir bi ñeneen ñu ngi ci opposition bi tey jii jàppante yooyu di faral di am tey jii ban message nga ciy joxe. waa xam nga jàppante amu ci man foofu laa jàppee quoi jàppante amu ci kii attaqué bu toogee rek coow li jeex. kan ma attaqué ah, mais xam nga tey jii man ci li ma xalaat bokk mooy opposition ñoom amuñu genn doole goo xam dinañ ñëw di attaquer ñenn ñi dinañ ñëw di attaquer pouvoir donc ñi nga xam ñoo yore doole ji ñoom ñoo war a xam ni doole ji ñu yore joxuñu leen ko kir ñuy attaque kii pour ñuy dóor kii dañ leen jox pour ñu liggéeyal askan bi ñoom loolu buñ ko doxee rek. ñi nekk seen ginnaaw dañuy ah dañuy am fit daal di ne ah ñun kat kii kon loogu waxatul waxi attaqué mais waxi programme lay wax waxi lii wax li ñu fekk si ko ci code programme boobu foofu lañ foofu la foofu lañ a fekk si maanaam yow boo jiitee da am noo war a doxalee noonu ngay doxalee mooy tax sa population ñëw fekk si la ci mais munoo am noo xaw a mel ba pare bëgg ne askan bi force nii ngeen di mel mënul nekk il faut ñooñu ñu régler seen problème ba pare ñoom il faut ñu naturel nekk nit ñu xam ni que ni ñu ñu ñu ñu responsable lañ nit ñu ñu nawloo ci réew mi lañ ñu doog a bi mën leen a fekk ci loolu. xam naa li des ci yi sax taxu koo bëri waaye ñu dikk ci diggante Touba ak Mbacké rawatina Mbacké dañu gis ne que euh, Mbacké daanaka dafa xaw a dee ci côté yëpp te en tant que jeune seen liggéey bi ngay def nii tey ji bu yàlla dogalee ba ngeen dem fa nga xamante ni fa ngeen nasa di nocc di fësalaate tey ji ndax euh, pare ngeen pour pour jàppale ñaari dëkk yi ak Mbàkke ni nga xamante noonu la delloo ginnaaw mën na ne euh, ginnaaw Ablaye Wade ci lycée bi nga xam ne defoon na ko fi mënatu ñoo joxañ baaraam ne lii état ko fi def tey est-ce que xeex yooyu yéen ndaw ñi yéen a ngi ci. waaw xam nga tey jii bu ñu nee Mbàkke dañuy wax beneen dëkk li xew Mbàkke moo xew fépp li xew Mbàkke moo xew fépp jamono ji ci boppam askan bi ñoo sonn dañoo fipp loolu ñuy wax fipp askan bee sonn ba fipp. maanaam ñoom dañoo xam ni que ni am nañ lu ñu jot am am nañ lu jot a am mais li ñu jot am daal dellusi wut ci ñoom te ji état bu dee liggéey rek ko tax a jóg man xam naa xel que ni ñoom am nañ programme bu ñu mën a teg pour que ni askan bi jóg ci problème yi ñu nekk mais dafa mel ni dañoo nekkul ci problème mu askan bi dañoo nekk ci yeneen problème maanaam euh, nu may def ba toog fi nu may def ba gën fee yàgg nu may def ba kii du falu nu may maanaam ñoom ci yooyu la ñu gën a focaliser wu ko liggéeyal askan bi te naa li gën a am importance mooy que ni ngay liggéeyal askan bi ba askan bi sentiral sal seen seen bopp ñu xam ni que ni yow mi yaa ngi liggéey bu boobaa képp ku taxaw di wax duñ ko déglu mais bu dee yow euh, sa liggéey dafa des ba pare nga ne kenn du déglu keneen yaa am problème hmm. loolu day am problème. tey jii yan kàddu ngay dëjee. waaw li may wax nag mooy que ni euh, mbokk yi ñun sénégalais yi muy jeunesse bi muy mag yi muy yaay yi muy bàyyi ñun ñëpp am problème. maanaam du benn groupe wala benn nit mooy régler suñu problème déedéet ñun ñëpp ñooy engagé wu xam ni que ni fii situation réew mi toll intérêt yi ñëpp a ci nekk ndax tey jii suñu mbokk politiciens yi nekk ci réew mi ñëpp gis nañ ni que ni ñoom su problème amee ci réew mi du ñoom ñooy am problème ñun askan bi ñun ñooy am problème maanaam ñun ñi nga xam ni que nii ñun ñoo koy dund ñun ñooy am problème tey jii hôpital yi nga xam ne war nañ koo tabax tabaxuñ ko. école yi nga war a xam ni war nañ ko tabax tabaxuñ ko kan moo ci am problème ak yeneen ak yeneen kan moo ci am problème ñun askan bi ñun ñoo ci am problème ndax tey jii ñaata nit nga gis ñu ñàkk seen bakkan ci lan dañoo dañoo dem hôpital ñu ne amuñu lal bu ñu tëdd wala hôpital bi daa fees ñu leen di jagat jagate ba ñàkk seen bakkan ak ñeneen ñoo xam ni këri dañ doon accoucher mais malheureusement avant ñuy dem wala seen dëkk amul amul amul ay hôpital yooyu yëpp tey jii bu ñëwee ci problème mu askan bi lay dal mais du dal ci politicien parce que ñoom dans ce cas. ku feebar ci seen mbokk même bu ñu la mënta fajee fii dañ la yóbbu faji la bitim réew yow sa doom sa baay sa nijaay sa sa tante ñëpp feebar mënuñ leen fee faje parce que feebar bi mënuñ koo fajee Sénégal du ñàkk ay borom yi xam-xam da ñàkk matériel la loolu tey jii ñu jël ay ay xaalis bu dul jeex di ko pasar pasare di ko yóbbu ci loo xam ni que ni tey askan bi ci loolu la gënoon soxla éducation bii ngay gis tey jii ñaata abri provisoire moo am ñaata école sénégalais yi ñoo koy dund mais ñoom seen doom yi dunduñ ko ñu ngi leen yóbbu ay Canada ay France ay États-Unis ñuy dem di jàngi dégg nag problème bi ñun duñu xaar ñoom ñu koy toog naan danañ ko régler wala duñ ko régler ñun dañuy taxaw ci situation boo xam ni que ni lii mooy suñuy problème dañ koy régler te loolu man damaa gis ni que ni assemblée nationale bu normal boo xam ni que ni day nit ci yitte eskan bi moo koy mën a regle ñi lay sant di baax di la gërëm euh, tey mbokk yi ñu àndoon ak ki nga xamante moo di Pape Seck euh, di ndaw nekk fii ci diggante Touba ak Mbacké euh, gén nag programme bi nga xamante ni moom la indi xam naa rek ñuy ñaan yàlla jàppale ko ci bu baax a baax di sant gërëm mboolem ñi nga xam ne ñu doon bàyyi xel entretien bi ci Sénégal fii ci diwaan bu Touba ci kàddu gu Cheikh Bey ngeen ci àll ci image yi sant gërëm mboolem ñi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel jox leen daje ci beneen entretien ak